nono la ko muassasatul wafa'i bi huquqil iman di def ak yeen bi gor gi tambule ba legi ci bis bu nek ci waxtu wi tay ji nañ fas ak yeen dalal kenn ci ñi nga xamne tan nañ len ñu fas yéene ànd ak ñun diru koor wi ngir jangat tomb yi nga xamne tan nañ ko fas yene and ak yéen jangat ko di ñaan yalla mu defal ñu ak jariñu ci li nga xamantene mom lañ ci wax ak li nga xamantene mom lañ ci liggey niñ ko baxo rek bala ñoo jox kaddu gi ki ñi dalal tay dañuy xamle aslëf ci ay jaar-jaaram ci walu jang ak jangale xamle tamit aslëf ci li nga xamante ne moom la fas yéenee waxtaan ak ñun ki ñuy dalal tey mooy oustaz Alioune Sall yaakaar naa ne du ma wax ci Darou Moukhty waaye Sénégal jër du ñu ko fi présenté ndax ñu bare bari xam nañ ko ci jaar-jaar yi oustaz Alioune Sall Oustaz Alioune Sall mi ngi jànge alquranul karim ci dëkk bu ñuy wax kub kub foofee la jànge alquranul karim ginnaaw bi mu noppee ci njàngum alquran mi mu ngi tàmbulee njàngum xam-xam mi walla njàngum arab mi te bu mu waxee njàngum arab mooy njàngum xam-xam mi ci dëkk bu ñuy wax càlle ginnaaw ba la fa jóge ñëw Mbàkke wall foofee la mottalee wala foofee tamit jàng na fa xam bari jaar ci béréb yu baree bari tàmbalee ko ci jawra kuto jóge fa dem ci Saalum bi mu fa jógee tamit jaar na ci daara ju ñuy wax Manarul Huda fii ci Louga maa ñun ñii di wax ak yéen jaar nañ ci ay loxoom mu jàngal ñu foofu ci daara jooju bi mu fi jógee tamit euh, mu dem ndakaaru bi jàngale foofu waaye yemul ci jàngale ci daar yi dong jàngale moomu daf ko lawal ba ci rajo yi ak télévision yi ndax mu ngi njëkk ci rajo dunia daan fa def ay émission yoo xamante ne da ciy ubbee nit ñi ak di ci xamal seen wàllu diine ba jamono ji ñuy wax yéen ci Sud FM yaakaar naa ne ku koy faral di déglu ku nekk da nga eh, yàgg nga ko faa dégg fay def ay ubbee ak ay waxtaan yoo xamante ni waxtaan yu am solo la ci wàllu tafsiru Qur'aanul Karim ak waxtaanu fajar yi ak yeneen waxtaan naka noonu tamit télévision yi ku koy seetaan ku nekk boo dee lu mel 2 wala RTS ci waxtaanu koor yi eh, yaakaar naa moom mi bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy animé waxtaan yooyu ci euh, télévision yooyu waaye nag loolu yemalewu ko fii ci biir Sénégal dong ba bitim réew dafay dem bi fa animé ay conférence lépp rek bëgg li nga xamante ne yàlla baax na ko mu xam ko ci wàllu diine koo jot li jullit ubbi na jenn daara ju ñuy wax Ali Imran ñu fay jàngale alquranul karim ak xam-xam yaakaar naa ne bu yagut lañ doon tek euh wala juma dañ fay tabax pause premier pierre bi bu yagul lañ ko doon def lool lepp mom mi mooy ki nga xamantene moko saytu yalla nako ci yalla jappale ba lim ci yene lepp mu àgg tamit ci walu internet bi ku ko bëgg a ci ay activité am ak ay waxtaanam ak lu waji ci loolu ali point org site bi nga xamantene moy mooy nga xam ne ku ci dugg lépp lu aju ci ay activité yi incha allah da ko fekk foofu ci site boobu noonu kon ci gàttal kooku mooy ki nga xamante ne moom lañ dalal tey jii mu fas yéenee seq ak ñun bi fas yéenee jàngal nag tomb tomb am solo ci dundub ab muy lan muy bennoo goo xamante ne jullit ñi war nañ ko bennoo kon loolu mooy li nga xamante ne moom la fas yéenee waxtaan ak ñun danañu xamal am solo goo xamante ne benn jullit ñi am na ko solo bu ci jógee tamit danañu xamal lan mooy bennoo su ci jógee tamit danañu xamal taxalikoo ana lan la mën a jur kon yaakaar naa ne eh, li ñu def moom mooy dañ koy jox kàddu gi ñu bàyyi xel rek ne eh, niñ ko baaxoo rek képp koo xamante ne am nga laaj bu aju ci lii nga xamante ne moom lay waxtaane incha allah bu ko indee bu waxtaan wi jeexee des na ci tontu naka noonu tamit laaj yi nga xamantene mo moo aju ci wàllu fiqh incha bu fekkente ne waxtu may nañu ko ñi tontu ci laaj yoyu inshallah da nañ tontu ci laaj yoyu kon li def moom mooy ñi fatlu mbolam rek ne waxtaan yi fi jàll yépp ak yi nga xamantene inshallah moy waji jàll amna ci ay CD ak ay cassette carré mo xam vidéo la mo xam son la boko soxla wo rek bo jokko ak ñi nga xam ne ñooy wàllu technique bi lolu jàpp ni nak naka non tamit ko xamantene ba nga topp waxtan ci radio yi radio yi nek ci gox yi yep ni ñu koy limi bis bu nek rek juróom ñaaro yep yëpp ko tek naka nonu majalis point orgu boo fa duggé tamit mom dañ koy def en direct euh, al istiqama ak al muridiyya tamit su ko duggé archive bi kenn ko nek dang ko fekk kon li ñu def moom mooy dañuy jox serigne bi kaddu bi yalla nako yalla defal tawfiq te defal ñuko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh noo ngi ñaan sunu boroom yàlla nu may dund gu barkeel ñoo ngi koy ñaan yàlla na nu fekkee déwén war gaa ngi dem yàlla na nu fi bàyyi buy del siwaat yàlla nañu fekk jataay yu barkeel yi di ci ruuse lépp yàlla na ko yàlla def suñu jëf def ko ci téere jëfu mag ñu mag ñi nga xam ne ñu ngi tëdd ci dëkk bii di ziar al khalifa sidi cheikh khadi di ko ñaanal yalla wir yalla ñu ko fi yagga fekk te lol ci boole gi ñu boole ci liggey bu reene liggey bi fukki fan ak juróom ñaar jëm juróom ñett di jaxeexoon Badar loolu kuñ na ci bokk ca liggéey boobee yéen nañ la tuyaaba ju rëy yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp dina waxtaan loo nag ci lu jëm ci bennoog jullit yi bu am solo boo xam ne war nay bari war nay yaatu war nañ koy siiwal ba mu siiw lool ndax dañoo bari gudd benn kon tekkiwul ñu niroo déedéet mën nañoo ñàkk niroo ñàkk niroo gi nag mooy ku ci mën ngaa dëkk sa kër ñi doon ay murit ñi doon ay tijaan ñi doon ay xaadir ñi doon ay laayeen ñi doon ay ñaseen ñi doon ay naxsabandi ñi doon ay ibaadu doon ay sunnit waaye bis bu nu àndee yëg ne ku tooñ lislaam ñun ñëpp la tooñ keroog yi nekk benn loolu mooy nekk benn waaye du caagi ni ñun ñëpp nu bokk ci génn kër loolu bi alxuraan bi wàcc ñëwutoon pour def loolu tey fii nu toog ci biir jumaa ji yàlla ñu fi yàgg toog fi ne benn bëgg-bëgg moonu fi indi waaye fi ne bokkuñu yëre yuñ sol kon wuuteeg yére gi wàññiwul lislaam dara lu tax parce que danoo bokk lu ñuy wut si ñu toog nun ñépp àjjuma it fi ne bu ñu jullee bu ñuy jullee si jumaa gis nga ni ñuy def ñépp li leen tax bi ñëw mooy fas aw ila dhikrillahi bu nu ca noppee bay dem fantashiru kon nekk benn ngoog bokk lu ñu yëg nag muy waxdatul hiwaaya wa shu'ur loolu moom yitteel na lislaam nga xam ne li ñuy bànneexal noo koy bokk li ñuy merloo noo koy bokk bis bu loolu amee nag moo jullee nekk nañ benn loolu ba bu amee rek mooy julli di nekk nañ benn mooy lan boo laalee kenn ci ñoom laal nga ñépp boo merloo kenn ci ñoom merloo nga ñépp kon su boobaa nekk nañ benn kon nekk benn mooy nu bokkul luy naqari mag ñi dañoo ne ci dëkk ba di aaye ku mbappat ma yaakaar goon di aaye mbappat ma dana gaaw a dañ lool waaye mu am ca mag ñoo xam ne bu mbappat mi di tëgg ñu nga yëngal seen tànk xam nga ki yëngal tànkam ci tama ji buñ ko bëgg a jële ci penc mi moom du bokk ci ñuy jóg na na fi jóg te su opposé woo rek koo tàmbali waaw su su opposé wu rek xàjjali ko tàmbali waaye ñoom ñëpp buñ bokkoon naqarlu mbappat mi wala ñu bokk lu tama ji buñ jógee mu jóg fa waaye boo jógee di faji dara tese koo xam ni kii loola ngay faj moo ko tax a jóg loolu nekk benn day jafe lool su ngeen seetloo aay jàngale nekk benn aay yépp mokkal nañ ko aay yépp mokkal nañ ko abus yi wax nekk benn nit mokkal nañ ko problème bi kay mooy kon luy nekk benn waaw looloo yëf yi waaye aay yi mokk na abus yi mokk na problème bi mooy jéego yi ñuy dox pour nekk benn wala lan mooy nekk benn foofu la yëf yi nekk foofu la nekk yëf yi nekk wax naa sànq nag na ñun tàqali ko jigunu danoo bariwut buñu takhaliko rek ki nuy fexel man no fexel ki nuy daane mën noo daaneel ka di jàng nañ sama wul ker bam nekkee ala firashil mawti wa jamaa awlaadahu dalen di jox ahsaban leen ay say sayu mat dal ne taw bi demal dem mu ne ko joxal sa rakk mu dem mu të mu ne ko na jox rakkam juróom-ñaari xale yu góor kenn mënu ko damm lu tax dañoo boole say mati mu ne joxaat leen ma ko ñu jox ko mu mu xàjjale ko daal ne taaw bi demal mu ne ko tël mu ne joxal sa rakk benn mu jox ko mu ne ko tël comme jox rek nga dem mu ne waaw matt mi day bi ngeen ko boolee damm ko jafe na ñu ne ko waaw kenn mënu ko sax mu ne bi ngeen ko xàjjale damm ko yomb na ñu ne lool sax mu ne yéen a ngoo sans commentaire maa ngi dem su ngeen àndee kenn du leen mën a damm kenn du leen mën a dara waaye bu ngeen xàjjale ko néew doole ni matt bi loolu jàngkat yi jàng nañ ko ci al adabul arabi jàng nañu it asiraanu salaas di jàngale ñàkk nekk benn ni muy wane néew doole ñetti nag dañoo ànd nag wu xonq nag wu ñuul ak wu weex ne ci àll gaynde bëgg leen a lekk ñu taxaw ñoom ñett mënulu leen dara gaynde dem wuti pexe yum leen taqalee mu ñëw fekk nag yi taxaw mu ne wu ñuul wi ak wu weex wi kaay leen waxtaan wu ñuul wi ak wu xonq wi wu weex wi ñëw mu ne ko yow bokkoo ci ñaari nag yi it nangu ñu xàjjale seen mbokk mu weex mi du bokk ci réunion bi donc ñaar ñi lay réunional ku weex ki du bokk waaw ah, boo gisee ma woo leen mooy ku ñuul ku weex ki ngeen di àndal très dangereux parce moom couleur bi mu yor mooy couleur bu baaxul couleur bu weex baaxul ci nag ma yéene leen na ngeen mucc ma bëgg ngeen jox ma ndigal ma lekk ko léegi su ma ko lekkee ngeen am sécurité loolu daal mooy réunion bi ñu ne ko lekkal ndax ñu am sécurité ñun xamuñu ko woon noonu mu daal dem lekk ko mu des ñaar le quinze décembre mu delsi daal ni nag wu ñuul wi kaay mu xonq wi kaay ma gis na mu ñëw mu ne ko couleur bu ñuul très dangereux ci guddi baaxul man daal dama bëgg nu réunion maa nu waxtaan nga may mën ndigal ma lekk nag wu ñuul wii bu ko defee yow maa ngi yow ñu des fii kenn du la mënal dara parce man may man may buru àll bi malikul qaba lol dal moy waxtan bi mu ko lekkal mu lek wu ñool bi le 3 janvier mu ne assalamu alaykum dama la bëgg lek tay amul réunion amul dialogue dama la bëgg lek nawe di ko xool ba mu yàgg muy càbb bi ne ko maa ukiltul yawma lékkoo ma tey innama ukiltu yawma ukila thawrul abyad kero ba nga lekkee nag wu weex wa nga ma lekkoon mais lékkoo ma tey lekkal gis nga jullit yi noonu la leen tubaab bi di def day day xëcc sunnit yi jaxase lan bañ jaxasoo mu ñëw ca chiaaya gaayu gaayu gaayooyu gaayooyu laa <laughs> ilaha illallah dafa seetaan ngeen bërki démb DGTV inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kenn musu koo gis hmm? tubaab bi noonu lay def moo tax jullit yi ñoo war a xam ne xàjjalikook tàqalikoo jiguleen ndax bari waaye cay bu nu booloo woon tamaratul waxda bu nu booloo woon ba nga xam ne lii jóge Kuwait ci azaka day dellu ci biir jullit yi doo xool ci adduna si mukk seen jullit ba faqir asakay kuwet at mu jot boo defee chiffre d'affaires mu ngi koy séddalee sénégalais yi nekk onze millions ñu dind ci ñi dul jullit ñuy jullit ñun ñëpp ku ci nekk mën nga am cent million par at ci asakay kuwet waxuma fukki millions de cent million par at ci asakay kuwet asakay iraq ñëwagul asaka yi mamlakatul arabia saoudia ñëwagut waaw jullit yépp ku ci na mën a ci am cent millions ana asaka jooju ñàkk nekk benn moo tax ma nga ca banque bitim réew ya keroog 11 septembre bi mu xewee la ci ëpp américains yi tajmiit ko tajmiit ko mooy lan li nga fi dénkoon ci banque bi ka karaj ci la ONG yu bari tëdd dina law léegi ba dematee bitim réew amatul benn ONG islamique bu ñemee yëkkati quarante mille jox la mukk boo yëkkatee quarante mille danga koy jox américains yi américains yi jox la lu tax ñu ne léegi tey ngeen indi fi lu ñu tuddee terrorisme lu na ko yóbbee ñàkk a nekk benn ci réewi arab nag la gën a feeñe dégg ngeen ibaara boobu naan ittafaqa al arabu alla yattafiqu ittafaqa al nañ ci ne ñoom duñu d'accord ñoom ñoo gën a xàjjale ko ci àdduna si tey mbokk yi noonu xàjjale koo jigunu ndax bari nekk benn moonu ji yàlla nañu nekk benn bu ñu ko bëggee nekk nag dafa jege pour nekk benn dañu jéggi benn jéego ñaari jéego ñett rek daje ñett jéego rek ndax lan ndax noo bokk benn yonent Muhammad sallallahu alayhi wa ño bokk allah bokk alquran bokk alxibla di bokk di julli bar nyentiraka, rakka takusan ñeenti timis ñet di bokk di julli fajar ñaar rakka suba ñaar rakka noko bokkale ge ñent am de al fatiha noko bokkale ñun ñep ñep jullit yépp a ko bokk kon nun li nu tee nekk benn ñetti jéego képp la yii yépp noo ko bokk luy ñetti jéego yi at taallumu wa tazkiyatu wa tasaamuh jàng yaru yaatoo sa dënn ñu nekk benn njàng mi mooy nga yëg ni li sëriñ bii di def ak li ngay def ak li may def cëslaay lenn la boo ko xasee xam tim njàng rek lu bare bare bari nga daal di koy romb taskiye bi mooy yar kii ba ku la bàq nga yëg ne daf lay jay tasaamux nag mooy dënn bi yaatu ba masala yu bari xacc waaye dënn boo xam ne menn masala dong ku deful masala ma nga ne ko kufr wala shirk bu penc mi yakko yakko yak buñ xàjjale koo yewa motax alquran nan yonente ba alam nashrah laka sadrak Musa nan yàlla rabbi shrah li sadri moy tasaamoo ñu gën am solo ci lislaam ci la bok moy yëg ne mën ngaa baax ba xëy faatu jenn way bax ba xëy faatu ngeen daje ci aljanna ja du la xam doo ko xam du xam foo bokk du xam fu bokk waaw loolu rek la nga nga yaatu dënn yëg ne lan ak mbaax la yàlla deful ci génn kër fépp la ko def def ko tasaare allahu akbar léeg la nga dem fenn gis fa ku baax ku gën ñëpp demaat fee keneen ku gën ñëpp waaw suñu waajur wi kër gi ci ci yi la bok suñu cheikh xadim yalla ko yalla ya jàppale ci yok ko wir ak ñu bari ci dëkk bi dama dama tàmbalee ci mom rek tasamuh kon nek ben yomb nañu wax dëgg yalla buñu fi li xamalon jenn way ci timis ji den sëriñ na doxal ñu julli timis jot ñu li xam na noppi mu ne iza jaa nasrullahi dañ ko ñun ñépp koy wax subhaanallah lu tax tàmbaleel ci faatiha lañ koy wax ñun ñépp mu jàng ba mu yàgg rek au lieu mu rukkoo rek ñu ji suuf ñu ne ko subhaanallah fii ba Makka ku ko def rek ñu la subhaanallah kon nag nun day pareel na nu kon ngir nekk benn jéego yi rek moo ci des Euh, sunu mag ñi fi nekkoon te nekkoon yor ay tariqa ñoom bokkuñu woon ay tariqa waaye benn lañu woon bokkuñu woon nag ay tariqa waaye benn lañu woon mooy lan dañoo bokkoon hiwaaya bokk shu'ur defe naa ne ñuy jàng démb ci réew mi xam nañ lu yóbbu maam jaara buso fële ca poroxaan diggante maam Mor Anta Sali sunu maam ja ma ba joxu ba ñoo lu ñu jàng démb xam nañ nu mu demee kon bokk lu ñuy yëg ñoom ñaar te bokku ñu fu ñu nekk moo leen tax a ànd foofee ba ma ba joxu ba des ca somb ba ahmad seexu taale jihaad ja it wàcce na ba loolu lañ déggoon ñoom it dem fekki ko yooyu yëg ne yëf yi benn la mag ñi nag li leen ko mayoon soo demee ci al muridiya wala nga dem ci at tijaniya wala nga dem ci al qadiriya benn masab lañ amoon muy al masabul maliki radiyallahu anhu moo tax boo daan jàng bo joge darul mu'ti dem kebe mer di motli sam jàng li nga jàngoon fi mom ngay continuer fele lutax ndax dara ji jenn la won boo jangane alquran riwaya warsh ngay jang am déet riwaya warsh mo fi amoon bo fi joge kon yobbu fen di fa li nga jàngoon fi mom ngay jang fele rek mom nga xam parce que daara ji nga joggé ak daara ji li ñuy ben programme la bu lax bu bu bu njàng mi mosaan a jeex nga dal laxdari ja daara joo dem nag laxdari bu jeexé nga teg ci lëwal ak ñoomin masaal misbaahu ak euh, al al izziyat nga xamné tiré daara yenn la woon donc ben la ben gogou tariqa yi musta bari ba xajale mak ñi ñoom yalla na fayal ñu len ndax ñoom xam nañ ñoom ñepp men maam lañ am muy maam maharam mag ñi ñi ci sant mbàkke ak ñi sante ci men maam lañ am maam maharam waaw xëy yeen ñi fi jang ci yoyu jang gis nañ maam maharam ni cyallal ak ñi sante ci wacce ci mom ak ñi cyallal ak ñi wacce ci mom waaw sunu maam jooju nga xam ne daa dégg ñu jàngal xuraan ca ca ga rek mu mokkal ko <laughs> góor ga day naafile rek na ca kanam di tari rek ba mu àgg mu ne dina tiwaan naa si maam maam ma xaram ne ko ma tari mu ne ko waaw mu tari mooy maami gaa yi nag <laughs> yàlla nu ko yàlla fayal <laughs> yéem na leen de ñun lañ daj alxuraan <laughs> laa ilaaha illallaah yalwaani boole cere ak laax ak xóot lépp nga boole ko ci leen ndab lekk di fanaan ci àll bi mënoo fexe ba mokkal moom mu ñëw ci weeru koor wa dégg koy naafila alxuraan àgg na jël tuwaa naafi mu ne ko ma tari mu ne waaw mu tari ko waaw noonu la yàlla def su bëggee denc ay xam-xamam ndax xam ngeen ne am na ñoo xam ne luñ mës a dégg benn yoon mokkal ko kere bi suratu taw ba wàccee te fekk Abubakar Siddiq jiite aj ga Seydina Ali la fa fekk mu ne ko kaay dem nga jànge ko ca aj ga léegi fii fi ay Seydina Ali toog yonent bi jàng ko ba mu jeex da ko mokkal jànge ko waaye bind ko ko de boobu mbind mbind nekku fi da ko jàng ba mu jeex rek baraa'atu minallahi wa rasulihi ba mu jeex rek Seydina Ali mokkal ko dem tari ko bi mouvement islamique xewee nag lañu commencé jëli riwaaya Hafs indi al masahib bu peuple bi ñur boo leen joxee loolu ku ci nekk lam yor day wax ni li ma yor a baax foofu la tàmbali affaire bi tàmbali c'est-à-dire dimension bi war a indi mazahib yi indi imam Shafi imam Malik Abu Hanifa Hanbal wuute gi na ci ñoom ki na ci daara man na koo xam waaye ki nekk ci école wala mu nekk université mënu koo xam kon lu muy wax sama wasa moo gën sa bos coow la tàmbali riwaaye warsi daal di ñëw riwaaye xaf sa fekk si ko xaaloo ni fekk si ko ki ki ki miinul yooyu ki xam daara day xam ne riwaaye xaf sa riwaaye yépp alquran la sa yas ak sa yaslee naaran wa yasla saira ak wa sallaa saira jugut waa ji dana dañ ko dugal sawar moom du mucc du mucc de sa yasla ak wa yusalla wala wa yusalla ak wa yasla lu ci mën di xew rek waajaa ngi biir sawar ñi ñi jàngoon xam nañ ko mais ñi jàngul xamuñu ko mooy lan mouvement islamique bu ñëwee moom daf daawul jàngale day former te formation doo ci doo ci doo ci doyal moo tax foofu boo ko munta boo ko munta téye bu dëgër mën naa xàjjale te doo ko yëg ngeen baal ma waaye dëgg la de mouvement islamique li ñu tuddee al li mu fi fekkee tarixa yi mag ñi dañoo gën a yeewu gone yi mag ñi fexe ba am benn riwaaya rek te pourtant yeneen riwaaya yi xamoon nañ ko am benn mës ëb rek te pourtant yeneen mës bi xamoon nañ ko waaw soo yëree téere seen shuay bu yii mbaa nga déglu waxtaanu Cheikh Abdul Xudóos rahmatullahi alayhi mbaa nga déglu waxtaanu kenn ñoom danga nga xam ne liñ xam tey ñun lañ xam ñoom démb ko ëpp waaye ñu xam ne bu lépp wasaarooyee kenn ku ne da bëgg a topp aw yoon kee topp yoon xàjjale ko tàmbali am lu rek la te bu ñëpp àndoon fii jóge Darou Moukhty gii jëm Touba di sept personnes bu ñuy àgg garage di am sept place ndax ñoo bokk ñu jëm am déet waaye bu ñu dee sept personnes bokkuñ fuñ jëm mën nañoo fanaan garage loolu mag loolu la mag ña xamoon waaw benn chauffeur nga fay fekk ba dëgër fi rek mu boole leen ñëpp ci oto bi fu ngeen dem ñëw tubaab mu ni yëg leen ndekete gaa yi bokkuñu fi ñu boo génnee fii dëkk bi nga njëkk a nu mu tudd Daaru Rahman ak Daaru Rahman ak jenn waaye daal génn paasam rek ne ko man bi fii laa jëm si woon oto bi des siis <laughs> mu àgg misara jenn waaye ne ko ah may di ngeen jégal ma fii laa yem mu def cinq waaye day wax na kon dematuma parce que loolu motax mak ñi loolu lañu xamane yàlla yàlla fayal ñu len ñom ñëpp ñu ànd am ben ben mësëb ben riwaya ben nangam ben nangam mo len taxone nek ben benn maa ngi nettali gaa ñi dem sama waxtaan yi ma amone kero ba Senghor he Serigne fallu ak Cheikh abdul Hadj abdul Aziz 13h vendredi une heure jotna na le vendredi soxla na len audience suñu Abdou dadi aksi ne ko Senghor tay ka da xat waxtan xaju fi ñu jël ci juma bu ñu paree dañu hadara xana jàppal ko benen yoon Senghor ne du problème suñu Abdou si dem minute yu tuuti sëñ fallu aksi rahmatullahi alayhi bi mu ñuy ubbi buntu auto bi mëna jërul jarul ubbi daal di wàcc weer bi daal di suñu abdu ñew naam ñu ne ko waaw ñew na ba dem mëna lim fi wax daal yokkuma ci baat wàññuma ci baat wasalaam daal ñibbi lolu may nek ben lolu nek ben yalla yalla fayal ñu len te xeer ñu ci ñun tam ñu jog ba def nonu bi ma mouvement islamique defee noonu laïcité bi réew mi doxe joué ci rôle bu rëy ci xàjjale koo gi laïcité mi réew mi doxe lan mooy laïcité mooy réew mu wax ne duma doxal alquran duma doxal xadiis duma doxal sunna te dana dox al almaniya faslu diin ani dawla bañu ko defé ñom al almaniya lay cité mom rekkal l'islam am ci wujju ak garab la l'islam ak garab la men paxa fi nek da ngay jëmbat laïcité mbaa nga jëmbat l'islam moo tax moom la laïcité muy géeralu nag bu gaa yi àndee sama affaire du baax kon léeg-léeg mu géeral yoo xam ne boo xoolee ba ci biir du luy boole boo xoolee ba ci biir du luy boole bokk na ca loolu sunu code bi code de la famille ndax boo demee ci alquran ci suratu nisa sunu borom nga wax fama lakum fil munafiqina fi'atayni taqat fi'atayni wala arkasahum la arkasahum lu tax ngeen di am ñaari position ci bu ngeen bëggee régler benn affaire yéen jullit di pourquoi yàlla nee na loolu bu fekkoon day jaaxal may wax jaaxal na ko pourquoi ngeen di am ñaari position ci benn affaire ñaari position warul woon am benn position rek mooy benn taxawaay waaye fi saa boo tuddee loolu ci pénc mi li yàlla wax ne am na ñu leen di taxawal jullit yépp war noonu loolu naqari leen metti leen ñu yëg benn wujj la fi lislaam am mooy la laïcité moo tax boo amee am xew boole boo ci wootee ña la cay wuy si bu ñu jëlee discours fi nga doon jaar ak si discours du bokk ak ñoom fi ñu jaarale seen bos ndax seen message du benn moo tax yàlla yàlla fayal ñu sëriñ Modou Moustapha alxalifatul awwal su ma saane xewlee màggal discours bi benn lay doon ab téere lay doon da koy bind jàng ko séddale ko nit ñi ko dem léegi la def cérémonie joxe kàddu gi boo waxee ba noppi jox ko kàddoom moom tam mu mu jàllale message am sëriñ bi maa ngi laa gërëm <laughs> daal di wax benn bayit damm ko <laughs> damm ko <laughs> kenn mësu koo gis rek wala mu wax benn hadis damm ko waaye daal na wax rek loolu def na lu bare baree bari ci taxale ko jullit yi tey waaw mbokk yi yàlla nañ nekk benn yi ma doon jot a wax mooy li xam ne moonu jik mooy nu nekk benn boole li ñu am te gis nga bi fi yonent bi jógee sallallahu alayhi wa moom bi mu fi nekkee dafa nekkoon jënn jëmm joo xam ne dimension yépp moo booloo ci moom bu fi jógee dimension yi day séddoo nit ñi dañ koy séddoo defe naa ñi ñuy siiwar ci màggal gi doon naa ko wax ci benn site Serigne Touba radiyallahu anhu bi mu fi jógee gis nga li ci Serigne Fallou jël dimension bi Serigne Fallou jël ak bi Serigne Abdoul Ahad jël ak bi sëriñ Saliou sunu xarit ba jël ak bi sëriñ Abdul Xaadir jël yoyu ku ci nek bo setlo da ngay xamne ki dimension bi mu yor spirituellement wóote nak bi ki yor waye ñoom ñepp nak dafa bolo won ci jënn jëm ñuy wax Sëriñ Tuubaa yonent bi non la bi mu fi abou bakkar dafa am lu mu jël Omar am lu mu jël Usmaan am lu mu jël àll yu am lu mu jël gaa yi di jël bi mu ñëwee ba ci fii tey jii sëriñ bii am na lu mu jël sëriñ bii am na lu mu jël léegi nag yooyu ñu jël buñ ko booloo rek daal di nekk jëmmi yonent bi bu ku nekk demee nag du baax am déet xoolal sama jëmm ji ma toog nii yàlla dafay boole loxo tànk bët gémmiñ bakkan nopp bopp yooyu la fi yàlla boole lo fi laal rek boo ne kii kana mën a la mana? a am déet waaw kii kana ma ne man nga ne kana ma ne man nga ne kan nga man léegi anama ana aliun sal. te kat bu ma faatu woon bañ tëral ma ci bun ci buntu jàkka ji nekkatuma ko ciir yaa fi kat waye nekkatuma ko kon nek ben rek nu jig mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka jasadil wahid ka jasadil wahid al jasadul wahid gis nga tas bi yàlla santone beut kero ba yàlla sakkee bët ba fii nu toll loolu rek mooy liggéeyu bët moo tax bët bu xëyee rek moom ma ca xool ba rek te amul benn cër bu naan ko puusal ma xool loxo it la yitteem rek bu xëyee ca lay nekk tànk mooy déplacer gaa yóbbu leen fenn am déet nopp féetu wu dégg gi rek waaw ja'alna lakum as-sam'a wal absara wal afida ñom ñep parce que ñom ñoy and liggey bi mana mëna nek ben nun tam nun ñep mën andere liggey bi nek ben giso technicien yi gaay dañu am lu jël image am lu jël son waye table de mixage bi moy mixé yi wa lakum sam'a pour enregistrer son wal absara pour image yi wala afida pour mixer son yeeg image yi <laughs> ci table de mixage waaw bu ci ngay kale yi kii dagg yi defi nangam dëkki yàlla nañ nekk benn moo tax xoolal rek liggéey boobu bu nekkee benn li muy amee solo nga xool waa ji di wax image bi nekk fi ñu ànd ñoom ñaar bu dul technique technicien bu aay da gis waa ji day wax ba ñepp wax ji door a ñëw ndax moom du du professionnel léeg-léeg ngeen gis ko télévision yi waa joo xam ne wax ba noppi wax ji door a jóg nga door a dégg wax ji fiqul ixtilaaf kon nun ñii toog ak ñuy déglu li ñuy tuddee ixtilaaf nun koy déggee nga xam ne du nu gaañ nu yëg ne benn lañ nan la ñuy lu ñu tuddee fiqul ixtilaaf dafa am lu ñu tuddee xilaaf ak ixtilaaf xajjali xajjalikoo ak wuute waxoon naa sànq ne niroo mën nañ koo ñàkk def waaye ñàkk nekk benn duñu ji xilaaf mooy ñaar ñu bokkul fu ñu jëm ixtilaaf mooy ñaar ñu bokkut nu ñuy demee fuñ jëm ñaar ñu bokkul fuñ jëm ak ñaar ñu bokkut nu ñuy demee fuñ jëm bu ñu fi jógee dem dem Touba buñu demee gaaraas am na njaga njaay defe naa am na njaga njaay car rapide am na amna na place amna na kalandoo bu dee Dakar amna stop waaw yóbbaale balema kon ñu ñépp ila Touba way bokku ñu ñu démé lool mo wutale khilaf ak ikhtilaf arab da ci yokuta rek khilaf ikhtilaf khilaf nak baxut motax do gis ben hadith nan khilaful ummati rahma dedet ikhtilaf mom moy moy problème ikhtilaf nak mom rahma asbabul ikhtilaf kon nanu moytu ba buñ am khilaf ikhtilaf nak wàññu dara asbabul ikhtilaf ikhtilaf leg leg mu am waaye dem di juri xilaaf maanaam bokk fuñ jëm te wóote nuñ fay demee léeg-léeg nit waru ci waru ci boppam mu yóbbe ko waru ci boppam mu wutale ko nit ñi luy waru ci boppam mooy bàkku rek waru ci sa bopp ba defe ne yaa fi raw yaa fi mën gën yaa gën a xam yaa gën a tabe ba bu ñuy tagg jikko yooyu luñ la ci jox du la doy loolu bokk na ci la sabab ixtilaaf am nga xam ne waa ji bu fekkoon ab réunion tey su ñuy def résolution yi buñ dugalul li mu wax bu ëllëgee du ñëw boo bokkee ci daayira bu ñuy présenté bu ñu ko présenté bu suba mu bàyyi kooku li muy indi ci ixtilaaf day bari lool ndax su fa jógee la muy liggéey mooy lu gën la jël mbooloo ma ijaab bi ra'yi dana ko def waaw maa fi gën a rafet xalaat bu ko nit jàppee rek dina ko def ñaar ba ci yi koy def moy xubbu zati wa ittiba'ul hawa xubbu zaat mooy lan manam jëm te fi ne mbubb yun sol buñ ko wut ikhtilaf day bari lol gis nga bu ñu dem Makka amna limite bo xam bu ci ujaaji tolle rek sharia ne summeeku len am na limite boo xam ne bu ci ujaaj bi toll rek sharia ne su meeku leen isaan gis góor ñi daal di summi seen survêtement summi seen xaftaan summi seen grand mbubb summi seen mbaxana summi seen caaya isaan daal la sax danga koy summi nu ñu def sangu wodd jax ndax yàlla dafa bañ ñi wër ka bëgg te duñ nekk ben ndax li ñi wëri lenn la mu ne acca acca way len ñëpp andi di way labbayk allahumma labbayk ñu ko syndicaliste kalisti defe labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak buñ démé di wër ben doñ allahu akbar yàlla ñu nekk ben musaacir gogu du la yobbu mukk ci ngay julli nan yalla iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in kon gaañe la subhanallah am nit lo baña baña baña and ak nit ñi fokk nga boole len ci julli gi na iyyaka na'budu mak ñom nga mere sa surga ba doo ko jox reer du julli boole ko ci julli gi am nit nga nga mere sa aw ba ba ngay julli do ko ba nga joxo ko dépense waye bo julli boo ne iyaaka gën na ko naabudu maak sama aw yalla dugal waw lolou boko xamé rek nek ben yomb la munu fexé bu doo duggal nit ñi ak loo mere mere mere iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina ñett na nasta'inu ihdina mënu ci dara waaw ba ci li sabab ixtilaaf ci wàllu jikko mooy alxirsu ala zaama mooy xër ci bëgg a jiite ma jiite waaw man maa jiite gaa yi jiite Dakar léeg-léeg génn ilimaan ne maa jiite ci jàkk ji dëkk ba muy nekk baraat may waaw léegi nag <laughs> maa fi jiite dëkk ba muy nekk baraat may léegi nag loolu mooy alxirsu ala zaama maa ngi gis Serigne Maam Mor bu Cheikh Mouhamad Moxtada bind ci benn téere bu ama am solo bu tuuti ci xubbu zaama ak nee na ni muy def ci daayira yeeg association yeeg mbooloo yi lim ciy def téere bu am solo ñeenteel ba ci liy sabab ixtilaaf ci wallu jikko mooy zoo danni bil xayr zoo danni bil xayr maanaam ñaaw njort ñaaw njort ci jàmbur maanaam gis nit rek nit yi def maa bañ waaw bala nga xam daf laa bañ demal ci moom mooy kañ walla ñaaw njort ci nit jenn way bind daal ne tasawuf baaxut nga ne kon ku am tariixa baaxut dafa bind rek ne tasawuf baaxut nga ne kon ku am tariixa baaxut déedéet bi mu ne tasawuf baaxut da nga koy laaj ban tasawuf nga wax ban tasawuf nga wax ni baaxut mbaadu mooy tasawuf ba nga xam ne moom la jibril indiloon yonent bi booba ngay wax mbaadu ker ba mu koy wax naan maa huwal imaanu maa huwal islaam maa huwal ihsaanu keroog loolaay tasawuf boobu ngay wax bu dee boobu de benn tasawuf gënu ko waaye baaxul rek nga ne ñëpp baaxuñ benn xale dafa dégg ñu naan sayid xutbu pas-pasam leeru sayid xutbu mi bind fii si alxuraan jenn waaye bind ne pas-pas sayid xutbu leeru kenn wërte wax rahimahullah allahu akbar waxuma laa nag radiyallahu anhu xale ba gaa yi wut benn téere buñ tuddee maalim fi tariq dagg page bi dagg page bi abal ko ko bi mu ko liiree ba noppi daal dem ci waajib ko abal ne ko wallahi la azim musuma gis ku ngandee nii mu ne ko kan mu ne ko téere bi mu abal démb mu ne ko mooy sayt xutb mu ne ko waxoo dëgg mu ne ko moom la mu ne al du moom mu ne ko parce que li tax nga ne du moom mooy dangaa dégg aw xasam ci ab noonam te liiraloo ko loolu mooy suu zanni dégg ñu wax ci nit dara nga dànd ko daal di d'accord ci wax jooju ñu ko wax toog na yow di xaar loolu bokk na ci li indi ixtilaaf ci juli julit yi yalla nañ ci mucc ñentel ba gaaw ci nit gaaw ci tuumaal nit nga xamne da nga def benn affaire rek ñu tuumaal la génn la ci l'islam bi de bakar, ak kufur du ben bakkaar ak kufur du ben lan moy moy julit bu joom def lu ñuy téré lan moy kufru moy genn ci diini ji yombe wut non kon tuma laati yoyu juróom bennel ba moy at ta'assub moy par parlo far nak dagan na far par parlo baxu yunus mo ne man mata muta'assiban dakhala an-nar ku de ci par parlo dem sawara far nak dagan na luy far boko fenn far moy bok fen lu dagan na kum neex fu la neex par par lo bul par bul lo ba wax ju wul ci sa waay par bul lo ba wax ju jegul ci sama sa par bul lo ba wax ju jógewul ci sam réew wérut par bul parparloo wax ju sa parti loolu ku ci xas mucc rek mucc nga ba faaw yalla nañ ci mucc waaw asbaabul ixtilaaf alxuluxiya mbokk yi moy juróom ben yef yoyu waru bëgg sa bopp xër ci jité ñaaw njort gaaw ci tumal ak parparlo bu dee asbaab al ixtilaaf al ilmiya li jëm ci xam-xam kooku du problème ndax ixtilaaful ulama wal fuqaha bari na lool téere fiq yi looloo tax mu bari téere tafsir yi looloo tax mu bari jenn waay kabar ne nii teg loxo yi fii jenn waay kabar wàcce bu leen xuloo ginnaaw yéen ñépp ngi julli waaye waaye bu leen xuloo ndax ki yor loxoom di lekk ci laax bi ak ki yor as mbatt di lekk ci laax bi ñoom ñépp dañuy lekk am déet ki lekk laax ak ki yor bi di lekk laax ñoom ñuy lekk foofu ci fuqaha yi daaw ñu am kii day julli tàmbalee bismillahi rahmaani rahim kii julli tàmbali alhamdulillahi rabbil alamina ñu ne leen amu leen maanaam loolu ci téere fiqi moom mi ngi ci masha Allah bari lool léegi nag ki xamul loolu mën na koo fekk ci biir def koo njombe mbokk yi al ittihaadu farida wa darura booloo nekk benn alquran nee na farata la te munta bismillahi irrahmani irahim sunu boroom daa wax ci alquran ne inna allazina farraqu diinahum wa kaanu shi'an lasta minhum fi shay nga xam ne dañoo xàjjale seen diina tàqale ko kenn ku dëjëm fenn ñuy parparloo nekk ay mbooloo mu ne ko ah, mu ne ko séqoog ñoom dara xam nga loolu danger bi nekk ci shirk moo nekk ci tàqale ko ko ndax shirku daf ne wa man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi janna wa ma'wahu nar kon ndekete bokale yàlla ak xajjal juludi ben danger la innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay nga xamne dañu xajjal diina ji di par parlo di par parlo lolou la lolou la waji don doon indi barki dembu ca télé ba par parlo mooy lan pour fab ne Sidina Ali moo gën bakar moo gën Omar moo gën Ousmane moo waroon toog ci xilaafa ga loolu yitteelul jullit yi jullit li leen yitteel mooy bu fi yonent bi jógee ka toog a gën ka ca teg ca ka ca teg ca teg ka ca teg ca teg waaw sunu mag ma bu leen di indi ñoom saxaaba yi di leen way sax Aboubacar lañ njëkk teg ci Omar teg ci Ousmane teg ci Abu noonu lañ koy tegale ba 2009 <laughs> ba 2009 la doon tegaloo waa ji ñëw bëgg ñu ko teggil bëgg noo indil ne Seydina Aliou moo gën moo waroon toog ci xilaafa gi te projet bi bu àtte woon nañ ko ba teg ko sulli ay nit nag di leen tegal projet di leen àttewaat loolu moom nun suñu suñu yitte ak sunu temps mayuñu ko li la ci dundu gi at tafarruq jarima wa qatira taqalikoo gi ak togn la waye it eh, lu metti la tafarruq ñepp dem kenn ku ne dem ak sa barab day tax ku ñu upp ñu doole tàqali ko xeet wi laysa qadaran laziman maanaam ne yàllaa ko dogal yonent bi waxoon na ko léeg-léeg dañuy jàngalub hadis iftaraqatil yahuudu ila ihda wa sab'ina firqa kulluha fi nnaari illa waxida léegi léeg ñu jàngal ñu addis boobu ñu bari ci ñun gis nañ ko addis boobu liñ la ci bëgg jàngal mooy xàjjale ko gi munta ñàkk ndax ñi war a dem sa war dañ fay dem ngeen ne waa kuy dem aljanna mu ne ñun ñi nga xam ne ñooy groupe bi sowe loolu lay wax alfirqatu naajiya ñun ñooy groupe bi sowe léegi nag gurup boobu ku ca bokkut pour ñoom ila sawara te groupe ba <laughs> day am lu ñuy wax ne nii ngay mel door ca bokk waaye hadis bi mbokk yi yaakaar naa ñi fi def mustalahul hadis bari na gis nañ la ci Ibnu Hazm wax ñaareel ba mimma yusliju sudur hadis bi ñëwul ci Bukhari ñëwul ci Muslim te wuute na ak alxuraan alxuraan daa wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas defe naa ñun ñëpp ko jàng ci alxuraan kaa ngi nekk fii xeet yi ci gën hadis bi daal di ñëw ne xeet yi yéen ci yées kon problème day am kuntum xayra ummatin yéen de yéen xeetu muhammad xeet yéen a ci gën ñu ne ko luñ ci gëne mu ne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah moo tax yéen a fi gën hadis bi moom daal ñëw ne xeet yéen a ci yées ndax yéen yow di saxaleen ñu ne yahuud yi daal mu ne yahuud yi soixante onze kuréel lañ yëpp sawar bu des benn nasaraan tàqalikoo soixante douze kuréel yëpp sawar bu si benn yéen jullit li ngeen ñëw tàqalikoo soixante treize kuréel kon yéen a fi yées léegi yonent bi moo alquran fii ci hadis bi dafa mel ni kon contradiction dafa am te loolu du am kon la ibnu as waxoon ci hadis ba mooy bëgg a ñëw kon yonent bi indiwul hadis pour tàqale ñu wala boog déggin ba baaxut sax sax wala sëriñ ah déggin ba baaxut mooy lan bu fekkee yahud yi soixante onze kuréel lañ niñ koy déggee mooy ba nangoo woon wax ne Muusa Rasulullah mooy sobe bu dee nasaraan yi soixante douze lañ ba nangoo wax Isa Rasulullah mooy sobe xeetu Muhammad nag ku ne mooy jullit yi déggoo addis bi ummatu Muhammad dafa am ay yahud ci biir am ay nasaraan ci biir am ay mushrikuna ci biir lool maanaam ummatu muhammad mooy bi yàlla yónnee muhammad ba yowmal xiyaamati ku fi feeñ rek ci ummatoom nga bokk bu waxoon ne addis bi wér na kon dégg la ñuy walbati bu ñu waxoon ne wér na waaw ba ba muhammad nga ummatu boobu nag ñi ci nanga wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñooy alfirqatu naajiya waaw ñun ñooy sauvé waaye bu kenn defee ne dangay ñëw ci biir jullit yi génn ci ay jullit yu du sauvé ak jullit yu sauvé ana wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda waaw daal di dugal groupe bu tuuti aljanna dugal groupe bu baree baree bari sawara di xool nit ñi rek yow sawara daan nekkee yow tam sawara yow tam sawara lu ñenn ñi ñu naan leen da ngeen a yor lii ñenn ñu naan waxu leen lii ba ñëpp dem sawara mu des na groupe bu ndax boo xam ne bii mëtaguñ ci jullit yi 3 pour cent mbokk daa addaaymu alfikriya fi fiqhi al ixtilaaf maanaam bu ñu bëggoon ndëgër laay yoo xalaatu wuute gi nga xam ne bu amee duñ wàññi dara ixtilaaf mooy lan nan xam ne al ixtilaafu fi fi l furuuci darura wa raxma wuute gi ci téere fiqi munta ñàkk te yërmande la Égypte da nga naan fase sa jabar wala ngeen am problème ngay dem tribunal ci qadi ba nga ne man kat duma dem ci qadi imam Malik ndax damay ñak jabar ñu la foy dem nga imam Shafi'i lay dem ndax ma jula sama jabar parce que ci imam Malik bona sejabar sa jabar may nyak la sa baat ñak nga am déet ñak may la sa baat rek ñak kon buñ la atté ci ci ci tribunal bobu da nga ñak nga dem tribunal imam Shafi nan nañ ma atté fi ñu né ben fase la nga jëlaat sa jabar ngeen and ñibbi rahma rahma wa te ikhtilaf <laughs> yoyu du yaq bokk ci daa im manhajil wasatiyya manam ab julit lu muy dugg na nekk ummatan wasata ëppal baaxut yéesal baaxut diggante bi moo baax ñetteel ba diingat yi ak ak lu ñut yi di xóotal ñu bàyyi parce que xóotal gi leg leeg xóotal ba do atal ni ngay xóotal lacc banu Israël balen yàlla ni isbahu baqara baqara rey lan aw nak rek ud'una rabbaka yubayyin lana ud'una rabbaka yubayyin lana ba nak wa don fo nag woo xam ne nag wu nak wu mbokk ciur foo koy jële ci ko xamne bo gennul fi gisul nak ray ko rek am nga lañ la wax izbahu baqara am det ud'una rabbaka ud'una rabbaka ud'una rabbaka seen borom ne la nag bu mboq cur mboq nagu coon nagu mel nii <laughs> waaw gaa wër Sénégal yépp amuñu ko ñu dem Gambi wër Gambi nag wa amul fu ñu dem Mali amu fu ñu dem Guinée Bissau door ko faa fekk dem fekk abawal bawal yor ko jafagne jafagne ba tambali wat bawal bawal bu jay nak ñu ne dañu wër aw nak bu mbokk ñu gis ne yaa fi amul nag bawal bawal mu dal di xol fa leen jaayut bawal bawal xol fa leen jaayut fa bëgg aj tri bi lool baaxul ci diine Dakar leg leg xalé dañ koy japp ba ne Coca-Cola da haram am na ci xale yoo xam ne nañ ba ne mburu daa xaraam mburu mi ñuy lekk nii ñu ne daa am taxmiir lawir ba mu ñu ciy def mënul fu jëm di ko def ba ne boros de dents yi dafa xaram ñu ne parce que bëñ yi ci geenu mbaam ko wala xawma mu yën yooyu yooyu day tas penc mi daf koy yàq yonent bi nee na li xaraam dagan leer na li dagan leer na am na lu fi yàlla ne ñukk waxu ci dara bàyyi leen ko fi rek ñoom yabooy ca bokk mhm. bokk na ci daayim yooyu yu jëm ci wàllu euh, al fikriya mooy ñu bàyyi xel ci muhkamaat yi te gëm mutashaabihaat yi ndax daa bokk ci lu jul ikhtilaf moy muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayq fayattabi'una ma tashabaha min ibtigaa fitna ibtigaa tawila mutashabihat moy lan la gaay doon def ci télévision ba nan la yàlla toge arash waxtan ba jeexal ci waxu ñu dara ñaari waxtu waxtaan nañ ko ba jeexal te waxuñu dara bo fofu bo beugé wax loy wax kayfa stawal kayfa stawa arrahmanu ala al arsh looy wax al kayfiyya majhul ha wal istiwaa ma'lum léegi nak loy wax waxuñu dara ñu wax ba jeexal te waxuñu dara amna ci penj mi ñoo xamne fofu lañu bëgg nek nekk lég da ngay nuyu nit mëna la naka iman bi di nuyon tek nit nan ko naka iman bi li yow lan nga bëgg wax yow lo bëgg wax wala xol ni nako yow sa pas-pas leerul ah yow kañ nga xoti fi ba genné ko xol pas-pas bi delloo ko ci te yoonte bi ci wal ci walu muhkamat neena pas-pas bi wër bi moy ki nga xam ne buñ noddee mu ñew isa ra'aytum rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman am déet nodd nañ ñëw na ñu ne la gëm na yàlla nga ne billaahi gëm na yàlla jax waaye nag bëgg naan ko gëmoo yàlla ndaxte sa pas-pas léeru ku dem yàlla taxul laaj ko saaba yi ba ñu ba ñu reyee waaja ah fatabayyanu leen yàlla wax fatabayyanu kat kii ngeen rey nii moo yéen a yem te kat ko kuntum min xam nii mel ngeen meloon fa manallahu alaykum kon nak fa tabayyinu kon nak sa mbokum julit boko ko del japp ni mo la gën allah akbar waaw kera bañu ziar serigne Cheikh Khadi ci magal daru gi waxon nako manako ko mën na ko yaanu gën ah mën yaanu ay rakka upp ñu wéri koor yo wor upp ñu lo sarax upp ñu la kamil mu waaw mën a ko ngóor si tuuti si suñ kanam moom ak gën kon man ñëpp a ma gën mu ne ah mën a ko kii maa ko ëppi bàkkaar ëpp ko caay-caay ak ngëngate kon moom ak gën noonu yëf yi ab jul nu lay def jàppal na ñi la magal a gën jàppal na ñi la ndaw ñi la gën a ndawal a gën yow nga ne ci diggante bi waaye jàpp ne yaa gën payi parce que <laughs> ya gën xale parce que légui tay do gën kenn hein légui tay do gën kenn juromel ba ci ad-da'im al-fikriya fi fiqh al-ikhtilaf moy moytu dogu ci masala al-qat'u fi al-masail wal inkar jik jik nangam amul déedéet yow mën naa am sam jàng fa àggut Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu daf daan wax ne yéen doomi soxna yi teey leen ñu ne ah mu ne man qalla ilmuhu kathura inkaaruhu ku sa xam-xam tuuti da ngay diingat rek góor ga daa julli ba sëlmal rek teg loxo ba nii benn xale ne ko ne ko xaraam bidaa góor ga làmb poosam moom wérantu tak moom de làmb poos ba ne ko jërëjëf doom xammee bi de arek laa doon wër de ak sunna daal koy jox ñaari téeméer waaw ne ko léegi limal ma limal ma sunna yi xale ba ne ko xawma yépp mu ne ko kon bii da caa bokk ci yi nga xamut xam nga jékki-jékki doogu ne till lépp benn affaire nangam amut yow àggugoo fam nekk mën naa am téere yi tuuti ci ñëw Cheikh El moo ko doon téere yi tuuti moo ci ñëw li ci ñëw tuuti lañ ci jàng liñ ci jàng tuuti lañ ci dégg liñ ci dégg tuuti lañ ci jëfe liñ ci jëfe tuuti ci sell te li ci sell xamuñ ba xam yàlla nangu na koom déet am déet kon kay fëgg sa dënn teel na ak jékki-jékki rek ne nangam amut ku dem àggagoo ca rek daal na benn borom xam bu ñuy wax albani rahimahullah ci wàllu hadis waaw léeg-léeg mu ne hadis bi wérut nga dem ci beneen téere rek fekk ci mu ne wér na am na benn xale mu ay bu buy bind tanaaqudaat albani def na ci juróomi tam xaw ma juróom benn hmm? waaw tanaaqudaat albani yàlla ko yàlla yërëm dama bëgg wax rek ne jékki-jékki ne nangam amut boroom xam-xam bi daawuñu ko wax imaam Maalik da nga naan wax nangam mu ne ah la ba'sa bihi wala ñun de duñ ko jëfee wala waa Madina daawuñu ko jëfee yul daan wax waaye tépp rek mu ne xaraam hmm? wala amul fenn waaw ba ba waa ji ñëwee ca sëñ Babacar si def na ko woon dégg naa ñu ne yaa ne tux dafa xaraam suñ Babacar si ne ko tigi mu ne ko baqara ba naa amul tux daa xaraam dégg naa sëñ Babacar si ne ko mën ngaa firi alxuraan lépp a yow mu ne ko waaw mu ne ko bismillah firil nu ko ma wax la fi nekk waa ji yëpp li laa yàlla ko moom rabbil alamin yu yomb yu yomb firi <laughs> xam lim ci namm mu ne ko déet waxal li muy firi mu ne ko ah yàlla xam lim ci namm laa ci xam mu ne ko dem foofu la ko def <laughs> ah, waaw comme <laughs> comme xamul lim ci nam mu ne ko dem foofu la ko def mbokk yi xam nga jékki-jékki rek ne nangam amul ci wàllu diine ah waaja nee na réeruma la ñuy wax waaye kenn réerul ëpp nay wax walla nangam kenn mënu ko nangam kenn defu ko déedéet del wax rek mënuma ko wala xawuma ko wala defuma ko ndax bis bi ngay wax ne réeruma ku dem am na ko xam ne ay ganaar la reer te am déet juróom benneel ba ci daayim yooyu mooy al ittilaawu ala ala ala ixtilaafil ulama maanaam diir gis nga nit diir yëlal yëral bu la benn boroom xam-xam tënk ci ay téerinal del yër lii ma son naa gis benn boroom xam-xam boo xam ne dafa taalif ak téere tudd ko téere yi baaxul waaw laxdari la teg ca kaw téere yi baaxul la doon lim mu boole ci laxdari teg ko ca kaw dem na boole ci yi Ali Sabuni tafsiram boobu boole ci tafsir jël silal Qur'an téere yëpp yu yëpp mu ni benn wéru ci waaw léegi boo dul yër boo teseeg loolu yëral ko moom dong danga cay yem kon yeureulal ñëpp yeureulal ñëpp lo yeureugul nak nga maana ci rek téye sa bop bokku na ci da'aim fikriye yoy yi nga xamne moy degeural wute wuute fiqul ixtilaaf mooy tax mafahim moy déggin yi concept yi suñuy wax ci dara ñu ñu ñu leeral concept bi ñuy wax ba noppi door caa wax par exemple bu ñaar di xëccoo ci aw bëy te xàmmewuñ ne bëy mooy tef mooy sikket mën nañ faa yendoo coow bay dóorante kurpañ te leen la ñuy wax waaw gars yi dañoo dajee def benn réunion ne dañoo bëgg taxawal benn association islamique nuñ koy tuddee ne allahu akbar ñenn ñi ne déedéet laa ilaha illallah dañ ko de bañ xeex xeex ba mbooloo ma tas waaw laa ilaha illallah allahu akbar di xeex ba kurpañante mbooloo ma tas concept yi mafahim yi bu leeree nañ ñu tudde leen ni mu tudd ñu dem waaw tudde tur yi ni tudd loolu ñu tudde ay mafahim tahdidul mafahim bokk na ci yi koy dëgëral mooy al istixaalu bi umumi bi humamil umma al kubra maanaam li xeet di rëyle ñu ne ca te bàyyi détails yi parce que régler détails yi yomb na luy régler détails yi détails yi mooy am na yoo xam ne ay détails la ci xeet bi ni nga toogee hmm, kurus yi nga yor loolu ay détails la est-ce que loolu mun kër la du mun kër léegi nag boo ko defee mun kër di ci liggéey kañ ngay pare doo pare te xeet bi am ay ay ay ay mbir yu rëy yu mu bëgg a régler nan lay def ba asaka mii ñu di ko génneendoo di ko teg ci benn loxo loxo ba di ko séddale nan la ñuy def ba sunu code de la famille bii mu réglé ba ba l'islam yi nan la def ba euh, homosexualité ngóor jigéen mii yooyu la l'islam réglé ne ca nañ ca ne waaye déedéet bàyyi fa yooyu yépp ñëw fekk waa ji di seet noo ko génnee ci diini ji sa programme lépp mooy nu ma koy génnee seen naa ba muy nuyoo ñaar loxo la joxe gis naa bu waa ji ñëw daa jóg taxaw gàttandu ko waaye yooyu du mun kar yooyu du mun kar waaw juróom-ñeenteel bi mooy at-taawunu fil muttafaqi alayhi yi ñu ñu jàppalente ci yi nga xam ne d'accord nañ ci ba nag ñu téye ko fa nag jàppalente ci yi nu wuute nag aha ñu yaatalente dënn te yek ne ki lim def man na am def ko yeur fu leer bay khadima jaxate kala ñu bari ci yeen xam nañ ko allati ala llahi tawakkala ci keur ma kala <laughs> bay khadima jaxate kala allati ala llahi tawakkala ci keur ma kala <laughs> xam na ma kala sey fi bàyyi xaaja daa dem Tiwaawan fekk Cheikh Xaaj Malik ñu julli tisbaar mu li xaamal ko bàyyi xale bi jàng ca kaw bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba sëlmal maanaam dafa biral tisbaar ja nee nañu takkusaan jot mu biral ko timis jot mu yalu ko gee jot mu yalu ko alaaji Malik julli ci gannaaw mu ne cell rek <laughs> ba mu sëlmal mu di gunge ba ba ca yoon wa ñu tàggali koo ñaanal mu ñibbi waxu ko dara mu da depp ba dab ko ne ko sama jullit démb gi lo ci wax mu ne ko luma ci wax mu ne ko ah fo gisee tasbaar ju ñuy ju ñuy biral mu ne ko xana ci yow mu ne ko ah do ci wax dara mu ne ko raw ma la di mu ne ko ya mandu waaw maanaam foofu ab la rek bo xam bu ama am solo la <laughs> waaye nun moom loolu day kenn seen xel xalaatu di ko di ko di ko di ko muñaale moom dina tëll <laughs> fukkeel beeg benn te may bi ci mujj mooy képp kuy wax laa ilaha illallah téel saw làmmiñ ci moom téel sa loxo ci moom bul ko jéem a génn ci diini ji wala tuaadu man raaytum faahu yuxruju laa ilaha illallah jàng nañ ko noonu ñëpp wala ñu baree bare waaye fekk kuy wax laa ilaha illallah du lu diina nangu euh, ñetteelu tomb bi te mooy addaayim al li fiqi al li jëm ci wàllu jikko yi lii dëgëral li fi nekk kas néew ba tax nekk benn yomb nu la ca jiitu mooy al di def li ngay def te yàlla tax ku la ca fekk nga def ku la ca nga def te yàlla rek tax boo jóge sa saw dal koy seeti na yàlla tax bu dara tax lu dul moom loolu dina tax nekk benn yombuñ bu ñaaral bi at tajarud min al ahwa mooy bànneex yépp nga sumeeku ci bànneex yaan mooy ndomba tànk yi lay wax yaa fi raw fi man doo moroomam gaañi nga nga sumeeku ci at-taharrur min at-ta'assub lil asqaas mooy summeeku ba set wecc ci parparloo summeeku ba set wecc ci parparloo ñeenteel bi mooy rafet njort ci jaambur yi ihsaanu san wan bil aaxarin rafet njort ci jaambur yi mooy lan ku dul rek nga rafet njort ci moom jàpp ne moo la gën jàpp ne moo raw jàpp ne moo la gën a xam bi juróomeel mooy bul di jam kenn bul di jam kenn bul di diingat kenn bu bu bu njuumte amee del joxoñ sa bopp bu yàqu-yàqu amee ci penc mi del joxoon sa bopp jàpp ne yow mii bu yàqu-yàqu amee yow la wala wala du du du sawaay bi nga jàkkaar lool juróom-benneel bi moytu werante yi ndax werante léeg-léeg mu dugal nit ci euh, wax ne diwa diwa gën diw diwa raw diw yooya warte nekk yitte yi ñi nga xam ne ñooy toppe ñi nga xam ne ñooy xeet wi nanu bàyyi rek bàyyi werante yi bàyyi xëccoo yi xuloo yi ñu tax a nekk benn nu ñëpp bi ci mujj mooy alxiwaar xëccoo waxtaan ngir gis dëgg ñu def ko ci billati ahsan ndaxte ki koy def ak yéefar kat la suñu borom waxoon wala tujaadilu ahlul kitaab illaa billatii ahsan kon boo koy def ak jullit nag waxi noppi mbokk yi tomb yi nu woon tiim ko ay tomb la yoo xam ne jaar ci pour nekk benn yoon wu gàtt la yoon wu jege la yal na yàlla baaxe ba nun ñépp nu dund ko ndax nu mën a nekk benn ndax nekk benn moonu jig tasaaroo jiginu ndax bareeguñu ñu ñuy song am nañu doole lool am nañu kàttan buñ nekkul benn ñu faagagal ñu bër nañuy pexe lool fu ne ñan fay jaar côté bu ne ñan fay jaar jëy kii jëy kii jëy kii danay ubbi léeg-léeg téléphone su ma nekkee ca rajo ba nit woote téléphone ne ma man yow rekk lay déglu ma ne ko unhu <laughs> waaw ndax lan man li may jàpp mooy su ne man yow rek lay déglu damay jàpp ni mu ngi déglu kenn ci daara ji ci daara ji genn la bu ne man Cheikh Ahmad rek lay déglu ma ne kon mi ngi déglu ñaar ci daara ji waaye duma jàpp ne comme man rekk lay déglu am na un dama jàpp ne daara ji am na un loola tax samay waxtaan léeg-léeg su ma jubee loo xam ne lii Cheikh Abdourahmane Mbacké ko waxoon ma wax ko sans complexe su ma rombee ne lii Maodo Hadj Abdoul Aziz moo ko waxoon ma wax ko ndax nitu diine ci lislaam daawaar doon koo xam ne kii buy wax diina jël léppay maam la muy wax ndax alxuraan ñépp ko bokk dama ziyaar ji woon sëriñ Saaliw mu ne ma euh, doomi soxna fu nekk na yëg na doomi soxna yépp la fa nekkal jenn doomi soxna kepp fu nekk na yëg na doomi soxna yépp la fa nekkal keroog ma ziyaare ji suñu baar yi sama baara lox bii la jàpp def nii bi nu yàgg mu ne ma nii ne ma li defaroon diina ji démb moo koy defar tey te xam nga lu yàq waxtaankat yi seen waxtaan ma ne ko xam ah mu ne mooy waxtaan ba mu naan suñu mbokki murid yi mu ne ma li muy tekki mooy kooku daa bëgg boo wax ne moom bokku ko waxtaan mu yàgg mu ne sunu mbokki tijaan yi nee na la mu bëgg wax mooy moom it bokku ca mu ne ku ci mucc sa waxtaan baax yàlla na yàlla boole sàmm yàlla ñu bokk fekki déwén yàlla na yàlla gën fee yàggal xalifa bi yàlla ñu ko fi yàgg fekk yëngutu yi ngeen di yëngutu yàlla yàlla def lépp seen téere jëf def ko suñu téere jëf yàlla na yàlla boole sàmm sàmmal na suñu pas-pas sàmmal na suñu aqida defal ñu tawfiq ñoo ngi siyaar nag doomi soxna yi nekk ci biir barab bi yépp xamuñu leen par liste waaye ku leen yëkkati nuyoo bi yépp tekku ko ci loxol sunu xarit bii nu fi woo sëriñ moom dina xam kenn ku nekk lam ca yeyoog la cay wàllam nga jox leen ko yàlla gën sàmm lii daal ba mu dakk mukk bu leen ko dakkal waaw nun de sawar na ci ñëw ci lool def ci lii te yéen ñu tiyaaba sax man moo tax ngeen woonu fi ndax mënuñu fi wax lu ngeen déggutoon waaye yéen ñu baax ngeen ngeen yéen ñu tiyaaba daal muy woon nu ñëw def ci sunu sunu tuut si yàlla yàlla defar seeni mbir defal suñuy bir ci def suñuy dara in uridu illa al islah ma tata'tu wa tawfiq illa billah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh turu muassasatul wafa'i bi huququl iman ñi ngi yëkëti kaddu yi cant ak kaddu yi ñaan ci jëf ji nga xamantene jëf nga ko tay ji di xamne jot gi néew na te tamit fi nga jógee sori na waaye nag xam li ngay fekk si ak li liñ fi mën a am ci tuyaaba mu jaral la nga déplacé wu ñëw ba fii ngir bokk ak ñun jotaay bi loolu nag nekk na lu rëy rëy ci ñun sori na ci ñun trop kon yal na yàlla guddal sa fan yokk sa xam-xam li nga fi wax tamit yàlla nañu ko jariñoo xam naa ne dañuy jox Serigne Moustapha Diop bala ñoo dugg ci laaj rek ndax laaj xaw naa bari mu def ab taxaw seetlu bu gàtt ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaanee su ko defee ñu door dugg ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi. ñu fàttali rek mbokk yi ne incha allah suba Cheikh Ahmad Bamba Sall moo fas yéenee toog ci jataay bi ngir bokk ak ñun jàngat tasawuf dëggi dëggi tasawuf ak li ci bokkut loolu incha allah moom la Cheikh Ahmad Bamba Sall fas yéenee jàngat suba ci jotaay bi incha allah. Euh, ñu fàttali mbooloo mi tam ne am na benn délégation bu jóge ci Touba waa kër Sëriñ bu Mbacké muy daayira sëti Sëriñ Souhaïbou yi ñoom tamit ñëw nañ tey ngir teewe waxtaan wi ñu di leen delloo ay kàddu cant muy Sëriñ Abo Mbacké mu Sëriñ Cheikh Souhaïbou ak sañ Jiri Mbacké mu sëñ Sëriñ Fallou Souhaïbou ak Sëriñ Abo Mbacké mu sëñ Mouhamadou Habib kon ñoom tamit ñoom ñu ngi bokk ñu jotaay bi jóge ba Touba ñëw fii yàlla na yàlla fay tànk yàlla na ko yàlla def tànk yiw kon ñu jox kaddu gi Serigne Moustapha Diop mu def ab taxaw seetlu bu gàtt rek ñu door ñëw ci waxta ñu door ñëw ci laaji a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam assalaamu alaykum mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziar imam ñi ngi lay nuyu bu baax di la ziar di rafetlu waxtaan wi lool macha allah ni nga ko waxee ci njëlbeen maanaam boolook jullit ñi dafay lu war te loolu boroom xam-xam yépp d'accord nañ ci andil nga ñu ci ak leeral gu yaato yaatu kon yal nañ ko dégg te mu dégg ci xol yi dugg ci xol yi te ñu jëfe ko ndax bu nu nga ko indee ci baytu Cheikhul Xadim képp koo xamante ni bii ab jullit la di génne laa ilaha illallah ci gémmiñam kenn warute noonu moom ñàkk noonoo gi nag kon ak ànd la war a jur kon loolu ñu ngi ci rafetlu bu baax ci taxaw seetlu boobu niki noonu la itam li nga xam ne moom bu fekkee booloog jullit ñi la fii ci senegal defe naa bay na ci sas mu yaatu yaatu ndax ci am njàngaleem ak yoon wi mu jaar wax na ne mashayixi fil fiqhi malikul ali wa shafii wa ahmadi wa hanbali kon kooku wane na ne ñun ñëpp benn lañu ñi nga xamante ne ñooy njiit yi diiney fiq yi eh, njiiti eh, madahib yi kenn ku nekk rek loo wax te mu dëppoog li nga xam ne mooy sharia moom ànd na ci lool kon moom it bay na aw sasu rëy ci ittihaadul muslimin muy àndandoog jullit ñi indi nga ay leeral yu baree bari ci ni nga xam ne noonu la jamono di doxee ak yi nga xamante ne bii mooy ñëw ci xam-xam yu bees ak déggin wu bees ak xeeb li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon noonu nga ko waxee ni ñu ànde woon ci alquran ji muy benn ànd ci njàngeen wu muy benn ba tax na seeni téere sax dañ ko daan jokkalante di ko àbbalante da daan yónnee fii téere ba tiwaawoon wala ñu jëleb tiwaawoon ab téere yónnee ko feneen loolu mooy wane li ñuy jàng benn liñ gëm benn la kon loolee di yoon woo xam ne wu rafet la nañ ci yàlla dëgëral bu baax a baax rawatina alxuraan di ñu leeral lu bari bari ba ne inna hadihi ummatukum ummatun wahida kon loolu war nañoo dolli ak booloo nekk benn dellu ñu waxaat itam ne lépp loo xamante ne bii yonent bi andi na leen ko na ngeen jàpp ca loola te loolu mooy li nga xamante ne bii moom la ñu booloo moom la ñu war ànd nekk benn kon loolu di mbir mu am solo diine itam ni mu ko waxee rek millata abikum ibrahim huwa alladi sammakumul muslim kon loolu rek doy na sëkk kon ñu ngi sant bu baax a baax ci taxawaay bi di la gërëm ci nangul gi nga xam ne moom nga ñu nangul ba ñëw ci jataay bi loolu di rëy di lu rëy ci nun dégg nañ bu baax itam ni nga ko waxee incha allah lii luy sax lay doon mbooloo mi nga xam ne ñoo ko taxawal itam mooy muassasatul Wafa fépp fu xam-xam nekk rek fës nañ yéen caa fës nañu yéen caa sàkku ab tomb leeral ko mbokki jullit ñëpp kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di sant mbooleem njaboot gi nga àndal yal na yàlla fay la yal na yàlla nangul sa koor yal na yàlla guddal saw fan yal nañu yàlla boole fay jërë ngeen jëf ko mbokk yi ñu taxaw foofu ndax waxtu xam na mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal ci weeru koor wi tey sàkku ci ñaan al ussas Aliou Sall di suñu xarit ñi ngi lay ziar bu baax tey wax ni ci turu muassasatul wafa bi huquqil iman ñoom ñëpp ñi ngi maase di la sant di la gërëm di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu guddal saw fan te wéral sa yaram te sam xel ndax yaa ngi jariñ jullit ñi bu baax ci li la sunu borom subhaanahu wa taala xamal di santit ci woyof gi nga am ba ñëw ànd ak ñun ci jataay bii nuy wax mbokk yi bu baax ni waxtaan wi képp ku mu raw soo dégloo lii juróom-ñaari rajo yi insha allahu taala di nga ko dégg muy Sud FM wala Walf Fadjri wala Lamp FM wala Diso wala Dunia wala Darou Moukhty FM wala Jant bi FM bu dee ci wàllu internet bi it majalis point com en direct la koy jël naka noonu istixaama ak muridiya yooyu yëpp bu ngeen ci duggee da ngeen mën a jot waxtaan wi na mu leen neexee oustaz waxtaan wi wax dëgg yàlla nit ñi rafetlu nañ ko lool tax na laaj yi bari na lool lool lool fa tabarakallahu léegi mbokk mii mu ni ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la dafa doon laaj rek bëggoon nga wax ko ni ko lan lan war a mën a def nun jullit ñi ba bennoo nun ñëpp maanaam lan moo mën a def rek ngir ñëpp nu bennoo nekk benn loo yaakaaroon ne bu ko defee incha allah bismillahi rahmaani subhaanaka laa ilma lanaa ma maa allamtanaa innaka antal aliimul hakiim loolu de mooy li ma jeexale waxtaan wi nan la ñuy mën a def ngir ñu nekk benn mooy ginnaaw biñ jàngee aay yi koy jàngale jàng hadiis yi koy jàngale mooy ñu summeeku ci ñu sell ngir yàlla summeeku ci parparloo goreel suñu bopp ci wàllu bëgg sa bop buñ ko défé rek daal di jàmbale nek ben jàng nak ak yaatal dënn yi wallahu taala alam jërëjëf oustaz jazakallahu khairan mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu la nuyo ziaré la rafet lu waxtaan wi lol daf doon laaj mu ni moom wuute yi am lan moko fi indi ikhtilafat euh wote yi am di liko fi indi waxon nañ ko sank asbabul ikhtilaf yi fi indi Eh, bari na lool limoon nañ ca li jëm ci wàllu jikko topp bànneex parparloo ñàkk jàng dënn bu xat ñàkk yër lu yaatu yooyu moo ko fi indi yàlla fi jóg amin yàlla bala jërëjëf oustaz ki dafa laaj mu ni ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi lool daf la doon laaj rek nuñ mën a def ba li ñu wax laïcité ñu man ko fee dindi ñun jullit ñi alhamdulilah laïcité de li ko fi jëlee mooy d'abord nu xam ne baaxul ndax nit ki mën naa yëg ne daa feebar waaye li fi xamul ne daa feebar du faju li ko fi jëlee kon mooy nun ci sunu bopp nu yëg ne laïcité baaxul nu tàmbali ci xeex bi ñu koy xeex mooy jàng ba xam ba ci tege mooy bu fekkee démocratie dafa maye nu nu nu fal ku nu neex nu xam ko yoon yooyu buñ ko jaaree mën nañu fexe ba laïcité jóg fi waaye buñ xam bu ya buñ yaakaar ne dara si ku ci nag dañ ko fi bàyyi mu toog rek kon li ñu war a njëkk a mooy ñu xam ni baaxut ci def moom jë jiwut jéego yi nu mu fiy jógee ni mu fiy nag ñaar rek la benn bi mooy nu yaru ñun ñëpp ba ne ko fa ñukk moom. ben ñaar ba top liñ ñu tuddee démocratie te moy fab sunu def ci urne ba tek fi ko xam ki mom bu ñëw naan laïcité na fi jox wallahu taala alam yàlla rejeuf oustaz fokk bi mu ni ginaaw bi mu la nuyo ziaré la ñaanal la sunu borom guddal safante wéral sa yaram bu baax baax daf doon laaj mu ni naka la julit ñi ci Sénégal mëna def ba bolo waye yemut ci lool mu ne ba am tribunalul islam rawati na yéen yi nga xam yéenay wax ci diina ji nun ni wax ci diine ji day <laughs> xam naa ñun ñu wax ci rajo yi mooy gën a kii ndax diine ji moom ñépp a ci wax léegi nag nun ñu wax ci rajo yi ni ñu def ba booloo ba am tribunalul lislaam booloo gi ñuy waxtaani fii te mbokk yu baax yi nose ko dafa bokk ci liy jur loolu maanaam ñàkk a booloo moonu tee am liñ bëgg am lépp waaye suñu booloo woon tey bu subaa bu ñu nangam lañ bëgg daal di koy am ci saasa kon li nu tee am yooyu yëpp rek mooy ñàkk booloo kon bu nu booloo rek na nangam lañ bëgg rek daal koy am waaw kon e, e, tribunal yooyu ak laïcité bi yëpp mi ngi nekk ci ginnaaw booloo gi rek bu booloo gi am rek yooyu di am jërëjëf mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la itam mu ni moom it mi ngi laaj mu ni sëriñ bi mu ni yi nga wax mu dégg ko te muy yi sabab ñàkk bennoo gi mu ne ndax kon mbir mi nekkul ci jikko yi rek mu ngi ci jikko yi li ëpp de waaye yenn yi mi ngi ci xalaat yi ci ñaar la dafa al afkaar wal axlaaq ci ñaar yëpp la nekk dafa nekk ci jikko yi parce que afkaar yi mooy tubaab bi bu ñëwee tasawur ni nga gise day fexe ba mooñaat ko tubaab bi mooñaate nag léeg-léeg gis gisin woo xam ne waroo woon gisin yi waaye moom moo la yóbbu di gisee noonu donc nekkul ci jikko yi dong waaye mi ngi ci jikko yi mais mi ngi ci xalaat yi wa shukran jërëjëf kitam dafa mel ni laaj boobu rek xam naa moom la doon baamu mu ni ginnaaw bi mu la nuyoo ziaral dafay laaj mu ni ñàkk bennoo gi ndax jikko yi moo ko waral walla njàng mi moom moo ko waral waaw kon mooy mooy tontub kee rek njàng mi xam nga mooy afkaar yi li ñu ko tudde mooy tasawur yi gisin yi bu bu leeree rek ba xam ne bu ñu nee lii lu ñuul la ñun ñëpp ñu xam daa ñuul nekk benn yomb nu te loolu xam-xam moo koy waral ak tasawur yu leer rek wa shukran jërëjëf ki itam ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la mu ni moom laajam dafay laaj mu ni jullit ñi ndax ci sa xalaat rek jàpp nga ni dinañu mën a doonaat benn comme ni ko sunu borom subhaanahu wa santaane insha allah yàggatul sax yàggatul ndax li nu yëg fii ci biir jàkk ji mën na am ñen nanga ko yëg feneen ci ñàkk jee nekk benn sunu bool rek kon léegi te ñu nekk benn insha allah te yàggatul bu soob yàlla léegi nekk nañ ko sax ku dem fan yu néew lañ nekk ñu nekk ben insha allah kon nan ci am yaakaar rek yàlla moom lam jigi woon waadulaaw la si na ba laay ja jeex ci suurtu nuur moom lañu dig ba tey rek waaw yaabudu ni wala suñu ko biir seen ñu daal di nekk benn wa shukran kon mbokk mi itam moom itam mi ngi laaj ginaaw bi nga xamanteni mi ngi rafetlo waxtan wi lol mu ni day laaj radio yi ndax ñom manam ñaaka benno gi ndax mu ni japp nga ni radio yi ñu ci ci li koy waral di andi lu bare bare ah kay Radio yi kay bokku nañ ci ñi xaajale <laughs> ndax da ngay wax ci radio ben masala ñu ubbi radio fekk ke yendu ko weddi nga wax fële keneen wedd yenn ko weddi donc rajo yeeg télévision yi parce que ñi leen ñi invité ñi invité ñoo xamul li ñu invité ndax boo jàngee njàng mële kii jàng njàng mii bu ngeen toogee yéen ñaar mu daana la day yomb léeg-léeg nit invité koo xam ne kii kii mu invité ko man te kii mu invité day yàq rek loolu dinañ am danay amit ci jàngale mi ci rajo yi ñoo xam ne bu ñu préparé li ñu jàngale day ñew tok rek di wax legi nak man nga dem yaa dam ci masala mo xani mi li ngay wax ni jàngu ko fenn yéen ñii déglu rajo yi te jang leg leg ngeen xam lool xam ne ki lim préparer won jeex na nekk fay dédicacé rek waaw no ngi nuyu no ngi ziar Souleymane Fall di ziarale Mor Khoudia di ziarale foko deg rek moy lam préparer won jeex na yooyu bokk na ci li xaajal jul wax deug yalla ndax da nga ci dugal masala yo xam ne ci won wallahu taala alam yalla ñu daal dimbali jerejeuf oustaz ci sa biir waxtaan dégg na ci nga wax ci lu am solo lol bëggoon na itam nga dollil ñu ci tuti ay leeral melni mbokk momu ñu doon invité ci ta muy wax ci benn wàll bi ndax dafa mel bari ñu mel ni man ño xamni ne seenu jàng soriwul ta muy wax yu bari yo xamanteni ñoña man nañ ko dégg japp ko te fekk boba na loolu jumte ndax lu mel ni contrat mu ko daganal ak yenen ak yenen yu mel non. loolu bëggoon na loolu ñu ci mëna labiré nit dañoo dañoo bëggoon wa man nahaakumu an taallumi mu jëfandikoo ko fa nahyuhu ila dalali yantami ndax xool boo xam ne dara nekku ci lu ñëw toog waaye waa ji ñëw ne dagan na ci lislaam nga ànd ak benn xale bu jigéen ci mbedd bi mun la may naa la sama bopp mu dagan la loolu ku ne xam na ne du lu kenn xam loolu ku ne xam na ne yonent bi doon lu mel noonu wala nga ñëw nga ñëw ci cib dëkk daa di fay takk gone gu jigéen ne ko 5 heures 30 du matin laa mu ne léegi nag indi can gi nga ne ko can gi quinze mille la wala seize loolu ku ne xam ne dëgganut léegi nag ku ku xaw a jàng tuuti danga xam ne loolu tegul fenn su fekkee ku jàngul lenn nag bu déggee bu déggee bu ko arrangé day wax ne lii lii dara nekku ci looloo tax mu da mu garaaw nag wallahu taala alamu shukran jërëjëf kon ñu déggee ko noonu mbokk mi itam di laaj rek day mel ni laaj bi mu laajoon xaj na day nuroog laaj bu njëkk ba wan yoon moo gën a gaaw ci benn la jullit ni nu nekk benn yoon wi ci gën a gaaw ci benn la mu nekk benn mooy yoonu jàng wenn yoon rek la jàng yaatal sa dënn rek nekk benn yomb ñun ñëpp wa shukran waaw mbokk mi daf doon ginnaaw bi mu la nuyoo mu ni looy dénk ñi nga xam ne dañoo yore al al xarakatul islam yi muy mouvement bu yëngutu ci wàllu lislaam loo leen di dénk ngir ñu benn la jullit ñi ba xàjjaloo ba ñu am ci seen biir. alhamdulilah xanaa ñoom ñu xam ne ñoom duñu duñu ñu ñëw ci bees pour jële fi li fi nekkoon dañu doon ñoo xam dañu ñëw fekk mag ñi liggéey liggéey boobu mag ñi liggéeyoon benn ñu sof ci wala ñu beesal ca waaye bu ñëwee bëgg bëgg indi lu bees jël li mag ñi defoon teg fële mooy du ñu dem lu rek lay teg kon moom mooy islamique li ma waroon doon mooy bi ñu ñëwee yëg ne mag ñi liggéey nañ ba mel nii ñu ñëw nag wanaat nit ñi li mag ñi liggéeyoon nu ànd nekk benn waaye bu ñëwee nag daane li mag ñi defoon du noonu ñun ñi li ñu def noonu la su boobaa nag léegi yàqute gi muy jur mooy gën a rëy gi ñu nekkoon wa jërëjëf oustaz kitam dafay laaj mu ni looy dénk waxambaane yi jullit ñi ngir ci jëm ci ak bennoo rawatina sax gaa yi nga xamante ni dañuy weddi ak di tuumaal sunu mag ñu baax ñi dem fii jàng tuuti rek ñëw daal di comme ni nga ko waxe woon ñooñu loo leen di labir waaw wut jege naag laaj bi weesu léegi xam nga iblis daa wax ne la aqudanna lahum siratakal mustaqim ñu jëm si ci yow lay gàllankoor ci yoon wa ginnaaw ñooñu jëm si ci yoon wi lay gàllankoor kon ki jóg na day def mouvement islamique day dugg ci xaraka islamiya kon kooku la iblis la iblis bëgg kon bu bu jógee ci foofu di song si iblis wala bu iblis jógee di song si ñooñu ñoom ñoo war na xam ne kii daf leen a daf leen a daf leen a défi kon war na leen mën a jàddal kon suñ bàyyee xel iblis moomu leen bëgg a yàqal liggéey ya yomb leen buñ ko bàyyiwul xel nag daf leen di teggiloo yoon wi ñu wàcc yoon wi ba noppi defe nañ ca ko yoon wa loolu mooy danger bi ci nekk mooy lan jàpp ne li mag ñi defoon baaxul loolu ko defal dangaa jàng lu tuuti dangaa jàng lu tuuti waaye ku jàng lu rëy wala lu yaatu doo sikki sàkk mukk ci li mag ñi def ci réew mi defuñu fi ay biddaa defuñu fi ay xosaabalaat ñu fi ay ndëngate déedéet dina ji wér cëng lañ fi def islaam bu wér peng lañ lañ wàcc woon ci yonent bi ci wàllu islam ant ah, an laa ilaaha illallaa muhammadur rasuulullaah wa iqaamu salaati wa iitaa'i lépp la ñu def ba pare nag def jikko ji nga xam ne moom la islam bëgg amaan na ku ñëw jàpp ne loola lu neen la mooy dangaa yër benn téere xëy na wala ñaari téere te téere boobee di kontor ay mag nga ñëw ko dëpp ko suñ mag ñi wallahu taala alam wa shukran maa mbokk mi doon jéem a jokkoo jërëjëf jazakallahu xeyran oustaz kitam ginnaaw bi mu la nuyoo di la ziyaare mu ni looy laabire ñi nga xam ne dañoo jàpp ni tarixa yépp bidaa la boo tax ñoom tarixa boo wax dañuy wax loolu bidaa la ak mutasawifa yi wala ñenn ci ñoom sax ni ñuy móoloo salafiya ak yu mel noonu daal mu ni ñooñu loo leen di wax waaw tarixa bidaa la day xanaa dañuy wax kon ne bidaa xasana la bu ñu ne bidaa ñu ne kon de xasana la lan mooy tariqa mooy bi tubaab bi ñëw ci senegaal lan moo doonoon yitteem mooy daawañu ba tubaab bi siiñ daf ñu bëggoon a daawa pour tubaab bi siiñu bañ mel ni Cameroun ñu am nag mag ñu baax yàlla yàlla fayal ñu leen ñu ñu ñu ñu séddale réew mi ni Cheikh El malik Malick kaay nga dem ci intellectuel yi ne Serigne Touba kaay nga dem Bawal ne Cheikh Islam Hadj ma Niass kaay nga dem wàllaa dex ne Serigne Adi nekkal suñu diggante gis nga mag ñi ton stratégie boobu bu tubaab bi noppee muy man muy yéen kenn du jàngal Alxuraan kon kenn du jàngal Alxuraan donc lolu ma ñu doon liggey ku ko def ay bid'a ba bañ bok da nga bok fenen c'est-à-dire nit ki munta ñak serigne munta ñak tarixa manam bo fi bayiwon woon yi da ngay am and ak genn way la ngeen sering lu mu doon kuréel la mom lu doon ci yow ab serigne la te serigne ben serigne moy am serigne bo xamne ne jégué musalay jegee te loo ko gën a jege gën koo bëgg nga xam ne boo ñëwee ci moom mu lay raw ci diine te sëriñ boobu nag bu ko tasawuf yarut na am jikko yum dese yoo xam ne fokkum na ci moom maanaam ilmu taskiya mooy tasawuf sa yuzakkihim loolu nag nit ñàkk ko ba noppi nag nekk nit ku say jikko yëpp baax mënul nekk benn ngay leb te doo fay mbaa ngay wax lu dul dëgg waaw mbaa ngay njaañ mbaa ngay boole mbaa dëkk ci jëw ay nit mbaa ngay bind di xas ay nit tasawuf rek la nit ki yaru ku ñëw di yàq ay nit nga gàllankoor ko maa ngi koy nettali démb ba waa ji ñëwee ne Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu laay ni mucc na na jeex maanaam di ñëw di bëgg a yàq nit boo fekkul ko boo yàq ngeen àndi yàq daf leex ah li ma ci xam moo raw li nga ci xam ngeen ànd di ko yàq bu doon bidaa day bidaa xasana lay doon boo xam ne bii tabarakallah waa day dégluwaale waa acc taala alam wa shukran waaleykum uau uau uau uau uau uau Uau. Uau, baax waa kon ma laaj ma wax ko oustaz mu ni moom moom dafa fa féete fële ci ndakaaru waaye waxtuy julli yi la wax ni comme yéen ñi ciy faral di wax xam naa jombul daa mel ni ni ñu koy déggee euh, bu fekkee ne waxtu yi ni ñu koy joxee ndax dëppoo na ak ni mu war a amee ak yu mel noonu loolu la doon laaj bu ngeen ci jox xalaat noo ngi koy ziar baax baax baax sëriñ bi di bëgg ci euh, jokkaloo bi ak bismillah bismillah dog jot na